benn boo ko gëj a aloe vera kan lañ ko gëj a aloe vera rek ah kooku jawar ji ndox. waaw ci loolu rek. bay xam nga ni lu lay ne fang kenn du ko jeex. déedéet. lu nga xam loolu. absolument. mbaa xam nga ni tamit lépp lu doon dëndam. Ah. dafa leer naa ñu ne ay làmp. ah lan la loolu. sama sàcc dafa feeñ. alhamdulilah. sama nga ko. feeñ na xam naa kan jox na la sa xaalis. sama xaalis. Ah, ah. <laughs> waaw sama sàcc feeñ na xam naa kan la xam nga àdduna moom bi ñëpp dañuy sàcc. dëgg danga maa xamul nag. laa xamul Pape Dalla xam naa ko sàcc. te problème yaa ngi démarré ay waay waay waay waay waay waay gàcce gi gàcce gi. asalaamaaleykum jaane jaane jaane sant sant alhamdulilah ngi jégalu de xam naa dama lay fekk sax nga jàpp waaw sëriñ jaane <laughs> li nga ma waxoon waaw xaalis bi alhamdulilah waaw xam naa kan la ni nga ma ko waxee woon ne ma noonu la mel waaw leer na nañ waaw waaw waaw waaw waaye li nga ma waxoon ne ma bu feeñee pour ma bàyyi mu sedd dama xalaataat daal te xam ne loolu duma ko def déedéet déedéet xam nga lan moo tax ndax ndax ndax ndax ki sàcc euh, dafa ma bett foogu ma woon sax xalaat na dina ma def loolu waaw léegi nag li nga ma waxoon ne ma waaw këy na na loxo bi neewi mbaa tànk bi neewi wala biir bii daw wala suba suba suba balaa tàkku tàkkusaan mu dee hmm, defal ma loolu santal ma ko sax xale yi moom jaru incha allah bu soobee yàlla ah, loolu moom jaru ko waaw baax na waa incha allah mais yow lu mel ni ku bokk ci criminel ni ah yow rey pat luxati dagg-dagg xool ni ngay def du noonu sàcc nañ la xam nga sab sàcc bàyyil mu jeex ba fi nekk di toppaate man bëgguma ko soxor ah bëgguma ko soxor bàyyil wax ji suuf gasal ba mu xóot nga def rasale ñaasale mu jeex jarul rayee maa ko fas yéenewul bàyyi xam nga sa xam naa sama sàcc wax ma ko ma dem rek leen jaru ko xam naa ko gis nga kooku liñ koy def buñ ko ko defee biir bi day daw mooy rawatina eh? loxo bi day neewi mbaa bët bi neewi te suba balaa tàkkusaan day dee déggule ba la wax xanaa waaye yow mënoo bàyyi rey gi sax def biram mu daw ma koo xalaat bu doon jàmbur sax ñu mën a wax kon kooku teg na de torop waaye ah, fexel fexel fexel biram daw nga bàyyi rey gi ah waa patt patt waa tangkep tangkep bi biir bu ndaw sax gën yooyu yëpp tamit absolument waxal kan. Oh, dinaa la wax ñaar sarak ji waxoo ko dëgg ay la waaw waxoo ko dëgg de xaalis bu alal bu mu la jaral nga dagg loxo jàmbur alal warul jaral nit muy dagg ay cëri doomu adama baa muy potal buur buy daw sax moo tane biir buy daw mu deewoo ak lépp lu ci mënti xew te xaalis bi feeñu rek ñun jaral nañ non moom xam na ki ko jël instant yi nii xam na ki ko jël xam nañ ki ko jël ah xam nañ ki ko jël incha allahu léegi yow comme yow xam nga ko ñun ñëpp xam nañ ko léegi man dinaa def samay responsable bàyyi leen moom ma wax ak ki jël xaalis bi bi daa feeñoo moom xam na ko léegi dama bëgg ngeen bàyyi ma jël responsabilité man dinaa ko dox nee ko bàyyi lépp ci suuf. kan moo jël xaalis bi man dinaa xam naa ko bàyyi ko man dox lépp. xam nga lu ma la yëgal ñun ki jël xaalis beeg xam nga lu ñu intéressé xaalis bi feeñ. wala jëw moom xam na ki ko jël bàyyi leen mu sedd bàyyi leen mu sedd. bàyyi xam nga lu ma la yëgal ñun xamuñu ko jël xaalis bi ñun suñu xaalis na feeñ rek waaw man léegi man dinaa dem ba ki ko jël wax ak moom bàyyi mu mu mu xool nu mu def. gis nga xaalis bi feeñ suwaat kooku dee wala biir buy daw ñun loolu lañ soxla. léegi léegi pour mu feeñ rek. waaw amul problème léegi man maa jël xaalis bi man maa sàcc xaalis bi fay ci bopp. da nga koy wax pour ñu bàyyi mu sedd wala. déedéet bu wax dëgg di firnde man maa jël xaalis bi fayee ko bopp. yooyee da ngay kaf wala lan yoo xaalis bi ni yoo xool ma fii xaalis bi yow yaa ko jël yow. ah loolu la yàlla dogal. yow bay sañ nga sàcc xaalisu Ayda bi yow. yow ba yee ñàkk jom yow Aida mi nga xam boo ko ñaanoon xaalis bi mu may la ko nga jël xaalisu Aida di ko sàcc yow bay kon keroog li ñu toog fii di wax waxu xaalis bi yow ba ñu ba ma la noppee gis kon booba nga dem sàcc ji xaalis bi yow yow yaa ma bett yaa ñàkk jom amoon looy def di ma teg gàcce ci kanamu Aida di sàcc xaalisam yow ama sax lu may wax ak yow cim ma ko jéppee sikkinam bi mel ni geenu jay yàgg naa ko dégg garaawul maa jël xaalis bi ngeen bàyyi mu sedd benn yoon kay duuma moom li ma teg lépp moom xam naa ne moom bis bu ma duulee ay duu bis bu ma duule non man moom dinañ duulante de du dina ma duul baa ma duul loolu moom lu ma mesure yu ma ci jël la moom duu dana ma duul baa ma duul